murit bi ngal la xew rawlul maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ Tuuba ak ñoñam ñaati murit bi ngal la xerewlul maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ Tuuba ak ñoñam ñaati mbokki jàkkaaruñ ci duñu seetaan di ànd ak seen site internet Istikhama TV ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax di leen ndokkeel di ñaanal baax Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi loolu ci ànd ak wér waaye noonu la ñaanal itam ki nga xam ni mooy borom ëtt bi ñu nekk tey di sëriñ Abdul Xaadir Ndiaye di xalifa sëriñ Daaru Asan di ñaan yàlla dolli ko tawfiix bu baax a baax mbokk yi taxawaay bi am solo bi nga xam ne ñu nekk ci wàccaayu màggalug Daaru Ndiaye di màggal bi nga xam ne moom lañu defal sëriñ Daaru Asan ak mbooleem ak njabootam mu mel ni nag ren dañoo am taxawaay boo xam am solo boo xam ni daayira bi nga xam ni mooy jamaatu ahibaayi seexal Asan ak mbooleem organisation màggal gi def nañ ko jël ay bës yoo xamante ni dañ koy def di ko décentraliser di ko jëmale itam ci kër mbokki taalibe yi waaye itam di ko jëmale ci kilifa yi nga xam ni ñoo doon àndanteeg euh, sëriñ euh, ñoo doon àndanteeg sëñ Daaru Asan moo tax nag euh, bi ñu ñëwee fii ci kër sëñ Mapenda Xuja ñu tudd ko bés bi ren ñu moom ci taxawaay bi ñu ñaanal baax baax mboolem ak njabootam yàlla doo leen tawféex ci teewaayu mbooloo mu takk mi nga xamante ni gis nañ ko mu mel ni ñi ngi ki nga xam ni moo di Serigne Abdou Ndiaye Serigne Abdou itam euh, jiite daayira bi nga xam mooy jamaatu ahibaayi Seexal Asan fii ci euh, dëkk bi kon su ko defee Serigne Abdou euh, liñ la bëgg rek lan moo sabab tey ren taxawaay bi ak innovation bi nga xamante ni commission bi am nañ ko ak daayira bi. asalaamaaleykum wa sëñ Moussa noo ngi delloo am nuyoo di nuyoo mboolem waa Istixaama waaw bu ko defee dinaa mën sant yàlla ba noppi julli si bi sant sëñ Touba di sant sëñ Daw san li nga wax sëñ Moussa li nga xam mooy jubluwaay bi mooy sëñ Daw suñu borom da koo defal mu laxasaayu jaayante ak sëñ bi ànd moom di ko liggéeyal ba sëñ bi wóolu ko doyloo ko ñaanal ko gëm ko mu ñibbi si këy ay mbokkam na mu nekkee woon ci Serigne Touba ba mu ñibbee njàmb mu nekkee fa noonu yàlla dafa am mbooloo laxasaayu ànd ak moom di ko liggéey moom di ko liggéey di ko di liggéey ba mbooloo mu mbooloo mu bare bare Serigne Darou Assane gis ci ñoom loo xam ne ak kóolute ak doylu gu wér ni la Serigne Touba tegoon ci moom lo ci ay loxo moom Serigne Darou Assane muy ngërëmu yàlla loolee gis na jëmm yoo xam ne wóolu na leen ni mën na kaa teg ci seen i loxo te daa du yàq jëmm yooyee nag. tey jii ci ñu fi dajale muy sëñ ma Penda Xuja da cee bokk ak ñu bare bari ndax bu ñu xoolee sëñ Daaru yàlla dégal na lu ma ñaaf kii nit at benn yoo xam ne wax nañu ne seexal na leen tafa leen am tafa leen mbooloo loolu nag lañu ñu amoon yéene màggal sëñ Daaru Asan gii ñu siy génnee ñaar di ko wane ndax loolu lépp daa bokk ci li wane liggéey sëñ Daaru Asan te liggéey sëñ Daaru képp ku ko wane yaa ne wane si liggéey sëñ Tuubaa ndax sëñ Daoud lépp lu mu am sëñ Tuubaa moo ko defal kon na day wane ni liggéey bi sëñ Tuubaa liggéey sëñ Daoud Assane ak ngëm loole mooy wagaaka ba àgg tey ji ci njabootu sëñ Daoud Assane yi moo tax màggal gi bu mu publicité ñu gis ni màggal gi kat benn bis la te benn bis dafa xaw a xaw naa xat lool ci wane kan mooy sëñ Daoud Assane taxoon na ñu ne màggal gi bu jege see nañu sàkk ay bis yoo xam ni dañ ciy jagle ñenn ci njabootu siñ Daoud yi

liggéeyub sëñ Daaru Asan te liggéeyub sëñ Daaru boo ko wanee wane ne liggéeyub sëñ Tuubaa ndax sëñ ndax sëñ Daaru lu mu am sëñ Tuubaa ko defal lépp loo xam ne wane nañ sëñ sëñ Daaru kon wane nañ liggéey sëñ sëñ Tuubaa bi nga xam ne moom la doon def si seex si ni nga xam ne ni ko def sëñ Daaru Asan te def si yeneen ay kàngam yu bëri bëri bëri ñoo xam ni ñoo sëñ Daaru ñoo fa bokkoon di nekk kon daal loolu sëñ Moussa mooy jubluwaay bi demaat ay bassin na fas yéene nag loolu nag wàccee mu nekk ab saaru mobilisation waajale ko màggal gi ndax gis nañu màggal gi benn bis rek lay doon si armée boo xam ne njaboot suñu daw seen moom la ñu séq ba mu jàllee daanaka déwén la ñuy dajewaat loolu tax na ñu bëgg nag saa bu jublisee nag

na ko ci ndax li tax am na ci mooy lii ñu suñ jubluwaay moo doon wanee liggéey suñu Darou Assane te fuñ ci dem waa kër googee danañ gën a gis seen bopp si kër suñu Darou Assane loolu jeexital lay doon ndax jeexital bi mooy day bëgg aana loolu ñu naan nit ki maanaam il faut nga koy soññe soññee ndax ndax lii ab soññee la si si ñoom ñu fekk si ndax soññe bi mooy fuñ fuñ fuñ si dem ndax ñii mën naa ne diwub lu mat weer ba nañ ko wax ba ñu ngi koy waajal di woote seen njaboot di leen soññ te am na si ñoo xam ne wóor nañu ni bis bi ñu jagleel sëñ ma Penda tey moo tax ñu ñëpp ñu bokk si teew kon loolu ab yokkute beneen mbir mooy am nañ yaakaar ni bu yëfi jàllee ab jeexital dina ko amaat ci ñoom te loolu daaw fi joxoon a jaar loolu gis nañ ko te buñ xoolee tey jii bii jàll te suñ seex Gueye nay dana ko jegoo tey ji bu tey bii gis nañ suñ Cheikh Gueye ànd ànd na ak njabootam ñëpp ñëw teew te loolu xam ne dawul am kon li ko waral mooy yëg gi ñu yëg na seen bopp ci kër gi moo tax ba léegi fu kër gi soxlaatee ñun ñëpp ñu jàpp ne dañoo war a ànd seen njaboot ñëw teew te noonu mooy jubluwaay bi tey li ci des mooy am na ñu bëri ñoo xam ne xamuñu woon ni sax ni suñu dawal sax am na ñu seexal te loolu fu mu toll nii tàmbali di feeñ te loolu li ñu wax nii am na si ñaar fukki nit ak benn ñoo xam ne ñoo xam ne dañu liggéey seen dëw seen dëw gërëm leen gërëm loolee wut ay nit boole leen a ñoom xamal leen di leen képp koo xam ni sama jëmm ji rek moo la tax a jug jëmm yii ko fa àgg ci moom lépp looy wut moom boo fa amul sa ñoo si yow kon kooku wóolu woon na leen kon loolu mi ñuy tàmbal di feeñal di gëstu Ndao suñu waxee sëñ Darou Assane ak njabootam xel yëpp nañ xam ne liggéey sëñ Touba moo xam fu mu mën di nekk kenn mënu leen ci waaye mel na ni sëñ Abdou Khadir junj na junj barke démb ni loolu nag liggéey la boo xam ci kër sëñ Touba la waaye liggéey ci biir kër sëñ euh, Darou Assane gi war nañ ci am taxawaay war ci am pas-pas boo xamante ni euh, war nañ cee taxaw loolu ban taxawaay la ci daayira ko séene am waaw jërëjëf loolu sëñ Abdou Khadir wax loolu la amee te sëñ Darou Assane kenn leen Moustapha man si liggéey sëñ Touba yi tàmbalee ko ci Cheikh Maodo sëñ Fallou Ndiaye nekkoon fa bokkoon na si sëñ Fallou Ndiaye jàmbaar yi nga xam ne taxaw woon taxawaay bu ràññeeku si ginnaaw Cheikh Mouhamadou Moustapha si liggéey jumaa ji naka noonu noonu la yëf yi di continuer di continuer ba si mujjantal sëñ Saliou te mujj si doomi sëñ Touba yi ñëpp gisoon nañu liggéey bu mag bi nga xam daana sas waa Daaru Xudoos muy jaaw si sëñ Mbàkke Mouhamed taxawaay bi nga xam waa Daaru Ndiaye dañu ci am te loolu lépp lay liggéey yoo xam da yoonu mooy at yeneen yeneen tey kër sëñ Maodo Moutada am na liggéey yoo xam ne waa Dóor ñaar ñu fa def parce que ba am na fa kaas yoo xam ne boo demee kër sëñ Fallou am na liggéey yoo xam ne waa Dóor ñaar fa si tàmbale ko sa sëñ Mbaye Fallou sa liggéey bi mu doon liggéey sa xaya kër gi mu fa yore kër sëñ Abdou Khadir gi am na liggéey yoo xam ne waa Dóor ñaar ñoo fa liggéey si ay néeg kon Dóor ñaar liggéeyam yàgg naa yaatu si buñ kër sëñ Tuubaa Daaru moom waxi nopp loolu fee jóg ba fi ñu toll nii wax di yéen liggéey bii sëñ Muntaxa yëkkati mu jëm ci université bi sëñ bi daa soññi képp ku aju Kësin Dawson ñëpp ñu maasee taxaw ci taxawaay bu wàññeeku kon loolu day liggéey yoo xam ne dafa liggéey ci Kësin Tuubaa waaye nag suñ këyit bopp gi nag mu Kësin Dawson gi daa am loo xam daf ñu see te loolu moom kenn duñ ko defa ñoo ko waaye def suñu bopp loolu nag moo taxoon sëñ yi Khadre ne liggéey ne bi si jiit fi ñu mooy daara tàmbali woon nañ ko daaw ba liggéey bi raasa na mu toll si war koo kuule at àggee finition yi ngir ñu ma tàmbali njàng mi te loolu bu ñu ci jugee am na ab fajukaay boo xam ne nësëru nañ ko fa bàyyi nañ fa fu ko fooy def at lu mel ni juma yooyu yëpp ay wàccaay yoo xam ne lépp dañ ko def ci bii kër sëñ Darou Assane gi kon loolu sëñ Abdou Khadre di soññee si biir liggéey bi jërë jëf mbokk yi ginnaaw bu ñu dégloo kàddooy Serigne Abdou Ndiaye yi nga xam ne moom la yëkkati mu mel ni kon dañuy jox kàddu gi ki nga xamante ni mooy wax ci turu Serigne euh, Mor Mapenda mi nga xam ne moom lañ euh, tuddee bis waaye itam turu Serigne du Maguette mi nga xam ne tam moo war a euh, mooy xalifaam ne ci jotaay bi su ko defee ak sëñ bi bis bu am solo bi nga xamante ni daayira bi nga xam ni mooy daayira Ahibaay Seexil Asan ak mboolem njabootu Sëñ Daaru Asan def nañ ko li tey yéen waa kër gi ban yëgee nga ci am ak yéen kàddu ngeen def jëmale ko jëmu ci sell ji nga xam ni moom la Sëñ Daaru Asan Njaay seexaloon asalaamaaleykum wa rahmatullaahi ngir bokk bi ñu ngi lay siyaare bu baax a baax. kon ñoo ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala ñu teewe mu jiital nuyoo bi ci xalifa euh, général bi ci bu baax bi euh, ànd lépp loo xam bi euh, mbooloo ko ñaanal yàlla suñu borom subhanahu wa gën a guddal fanam wéeral ay cëram gannaaw loolu itam ñu ngi nuyu suñu buntu ci sëñ Daaru Xasan sëñ Abdou Ndiaye nga xam ne moo fi nekkal moo fi toog jotaay bi sëñ Daaru Xasan di ko siyaar baax baax di ko ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala mu gën a guddal fan wéeral ay cëram di teg nuyoo beeg siyaar bi ci loxol sëñ Ibrahima Jimbi mi nga xam ne mooy porte-parole euh, kër gi moom itam di ko ñaanal suñu borom taxa subhanahu wa taala mu gën ko dolli kàttan gën a guddal fan wér ay cëram ba nin lu ñëw lu ñëw lépp mu defe ko na ko soobee ah gannaaw loolu sëñ ma pend Njaay suñ ma suñ ma suñ maam ma pend Xuja moom dafa amoon ak bokk ak bokk suñ daaru Xasan Njaay ñu bokkoon seeni maam gannaaw ban amee ak bokk itam Euh, nga xam ne lépp euh, amoon na seen diggante waaye lépp la ko jiitu woon mooy bokk gi maanaam ba amee ak bokk ñoom ñaar itam euh, sëñ Ma Penda dafa jëw boppam jëbbal ko sëñ daa Xasan ñu ñaar di jaamu suñu loolu nag da koo jëloon woo ko moom sëñ daal di koy booleeg suñu ku ñu wax ne ko wool ku ñu wax sëriñ Euh, Belal Ndiaye ak Serigne Mor Koumba Ndiaye ak sëñ Mahim Ndiaye ak Serigne Mor Ngor Serigne euh, gi di ko gàmmoo fee foofee ci njarwaq bu ko defee ñoom ci loolu lañ nekkoon muy ndigalu suñu Daaru Xasan Ndiaye jël bis boobu di ko taxawee gàmmu gi muy njarwaq di ko defee foofa ci ndigalu suñu Daaru Xasan nga xam ne ci loolu lañ nekkoon dema dem ba xam ne dem na ba euh, gàmmu gi mujj euh, ba fi ñu koy toll nii ba fi ñu ba fi jamono ji ñu toll nii gàmb gi léegi mu ngi ci loxol Serigne moor Maguette Ndiaye nga xam ne moo fi toogee euh, jotaay yëpp sëñ ma Enda Khoudia Ndiaye moomee. di ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala tamit moom mu gën koo gën a guddal aw fanam gën a wër ay cëram ba li yéene liggéey ci yoon wi lépp mu defee ko incha allah nam ko soobee. Ah, gannaaw loolu itam Serigne Mor li nga xam ci moom rek maanaam mooy lu baax ak bëgg lu baax. ak itam taxawaay taxaw temm mu teg tànkam fa ko fa ko maamam ña tegoon ba su joni tey jii laxasaayu rek nekk ca ndigalul maam ya nañ ko daan defee ba léegi loolu lañ xam ci moom lu baax rek lañ xam ci moom ah, lu baax loolu mu nekk itam moo waral mu dafa dafa dem ba maanaam euh, euh, tey jii bis bii ñu jël ko tudde ko sëñ ma Penda Xuj Njaay ngir xam maanaam euh, kóllëre gëm séqoon ak sëñ Daaru Xasan Njaay ci mbokk ga ak taaliba ga sëñ Daaru Xasan digaloon ko mu ànd ak mag ñooñu mala limal ak mbokk yi yëpp ñu nekk njarwaxe di fa liggéey di fa gàmmu di fa jàngal alxuraan di fa digal taalibe yi di leen tere di leen jubal mu di leen ak yoonu Serigne Touba wooyee loolee dëkkut ba léegi mooy sax ba léegi sëñ Mor Ndiaye wëlbati ku nekk ci loola sëñ Mor Ndiaye nag ah, mënuñoo wax ci moom lu baax rek ndax ku baax la te itam di tànneef nekk koo xam ne wax dëgg yàlla tànkam ci siraatal mustaqim rek la ko teg saa boo ko gisee rek daal di dolli ak waar dolli gëm. dolli ko teg sa sa eh, sa tànk siraatul xakim ndax jëmmam ak melakaanam ak ay jëfam ndax moom ay jëfam du dara lu dul alxuraan sunna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak waxi Serigne Touba ndax képp koo xam ne gis nga ko mbaa nga toog ci ab jataayam lan lay digal mooy loolu loolu itam mën nañ ne ba mu nekkee tuut tànk ba ni xàmmee ba léegi muy magum jëm kenn mës koo xam ci lenn lu dul maanaam lu baax nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla sax ci jàngale alxuraan ak digale képp koo xam ne déggal nga ko nga teg sa tànk siraatal mustaqim ak topp wax ndigal Serigne te ndigal Serigne Touba mooy ndigal yonte bi sallallahu alayhi wasallam ndigal bi mooy ndigal yàlla kon daal loolu moom la nga xam ci suñu moor màggat suñu moor nag kilifa ga la goo xam ne daanaka euh, seere yi jëmmam da koy wane ndax képp koo xam ne toog nga ak moom wala nga gis ko wala nga waxtaan ak moom wala nga séq ak moom rek gis nga ci moom loo xam ne boo ko royee mbaa nga jëfe ko kenn du la gën ba faw ah li nekk nag mooy euh, ginnaaw ba mu nekkee njarwaq ci loola nekkoon laxasaayu topp ay ay ay wajuram ak i maamam ba nopp leen gis ba yàlla dogalee mu jógee war a njare wàqi ñëw fii ci Touba itam ah loolu fi nekkee mooy sampu daara comme na ko maam yi daan def ndax maam ya nekkul ci lu sampu daara jël ndaw yi dugal leen ci daara yi di leen yar teg leen ci siraat mustaqim wa di leen xamal lan mooy bëgg-bëgguk Serigne Touba lan mooy jaamu yàlla naka lañ koy defee sëñ moor Ndiaye rek ci loolu rek la nekk maanaam loolu la nekk yar ci njabootam yar ci ay taal yar ci taalibe yi yar ci wëllëre yi yar ci mbokk yi yar ci njaboot gi yar ci ñëpp ku ko xam ci loo nga xamee ndax ah taxawal na ay daara yoo xam ne maanaam fii ne tubaarkàlla ay ndaw nga fa di jàng di mokkal alxuraan di bind ay kaabil moo xam ay góor la moo xam ay jigéen la defar na itam ay néegu yàlla yoo xam ne wax dëgg yàlla mën a ku bëgg a jaamu yàlla man faa dugg jaamu yàlla loolu nag mooy li fi mag ñi nekkoon nag ñi loolu rek lañ fi nekkee woon amul leen luñ fi nekk lu lool ndax Serigne Touba loolu rek la digle ndax dëkkam bi ba nga koy sanc wax na ne dara taxut sanc ko du dul jaamu yàlla ak yàggal alxuraan loolu rek moo taxoon mu fàkk dëkk bi waaye dara taxut du noonu loola rek ci loola rek sëñ Mor Magat ci loola rek la nekkoon baax ba ba ci waaye noo gisee nag jëf jure ji nga xamante ni njabootu Sëñ Daaru Asan def nañ ko tey ñëw fii ban yëg-yëg nga ci am en tant que yéen ak njaboot nga xamante ni fekk si nañ leen tey. waaw loolu moom yëg-yëg ci am mooy xol bu sedd ak itam dolli ko yaakaar ak dolli ko pas-pas ne. lii day wane na rek mag ña lañ nekkoon rek mooy dëgg loolu rek lay wone ndax ku ne xam na ne Serigne Touba lam nekkoon rek mooy lay dëgg Serigne Darou Hassan lam nekkoon mooy la sëñ Touba nekkoon sëñ Mapenda Khoudia Ndiaye lam nekkoon mooy la sëñ Darou Hassan Ndiaye nekkoon loolee. mooy dox ba tey jii sëriñ Mor Maguette Ndiaye nekk ci ba lii xew tey ñu jël bis bii tànn sëñ Mor Penda Khoudia Ndiaye ci euh, euh, tudde ko ko ci tudde ko ko ndax xam ne mbokk la ci suñu Daaru Xasan ab taali boobu la woon wóllëreem la woon kon nag gis bi rafetlu ko rek lañ lañ ci gis ak itam am ci dalu xel ak dalu da ci da ci dolliku pas-pas ak gëm ak dolliku yaakaar bu baax a baax te itam te xam ne bis bi wax dëgg yàlla njariñ kepp la waaw njariñ li nga xam ne nag moom lañ ci yaakaar ba tax ñu di ko def di ci waaj bis bu màgg a màgg ci lislaam muy bisub suñu Daaru Xasan ah liñ ci yaakaar dañ ci am ndaje mi lépp loo xam ne dees na ko amee ci am ndaje mu mel nii loolee yàlla na yàlla nañ ko amee ci ndaje mi

ذاك المكي الذي الباري أفضله على كثير ممن هاس المزيات